képp kuy jeune dafa war a taxaw ngir jàppale ngir jàppale Papa Djibril Fall. L'Afrique continue d'être euh, d'incarner cette image d'un mendiant qui est assis sur une mine d'or loolu mooy dëgg parce que gisuma tey jii fa ñuy génnee phosphate bi ICSB fa mu nekk ci Mboro lan population Mboro beaucoup de population yi mucc ayib au contraire dañuy subir l'exploitation de cette ressource finalement on note tout simplement l'absence de l'État